asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar suñ kàddu tey nag kàddu dëgg la goo xam ne dafay ñeel responsabilité yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ci seen doxalin commencement ak bu tey gis nañ ne réew mi bi mu yëngoo ñu jël suñu matukaay jël suñu patriotisme jël suñu bëgg réew mi jël suñu dëgg ànd ci ak parti bi di Pastef aux causes président Ousmane Sonko ñuy xeex fàtte xajul fii mars deux mille vingt deux asafula deux mille vingt bii ñu génn bul fàtte ne président Ousmane Sonko bëgg na ñëw lew nañu seen fii am lu fi xew ñu am ay mbiruñ publier fañ jaar ak xeex bañ ca xeex ak lañ ca ñàkk ba bëgg Ousmane Sonko ñëw te booba nekkutoon président nekkutoon ministre pour lan pour lan pour mu pour ñu xam ni. réew mi waruñoo aaye kenn mu dugg fu ko neex ñu xeex ci daj ci lu nekk ba Ousmane Sonko dugg fii lew nañu seen am na yeneen këru diine yoo xam ne su fa daan ooj téléphone pour dem fa dañ ko wax naan kilifa gi dafa bari na ba ci la fay campagne yi sax loolu feeñ na ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man da sama laa xam xaw ma keneen lu ma musul nangul Macky Sall doyadele ko suñ këri diine yii du ma nangu kenn ku ko commencé wala ku koy def moo xam njuumte la moo xam tay tay tayeef la bu mu ci mënti doon bi ci jiitu parce ba président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee nañ wop nga jóg dem ñaari këru diine ñu gis ko teg suñ bët ñu toog ñu ne wat waroon naa ñëw Kaolack lee tax waroon naa dem feneen lee tax ñu teg suñ tànk noppi ndax cofeel am ay nawla yuñ bokk ak fii ci kër gi lu nekk ñu ñu koy wax ñu koy dégg mënuñoo xam ban lay la mënu ñoo xam lañ leen wax parce que ça su fii lay da dafay da fay am ay argument wala deug da fay am argument man nak nit la ko xamne deug juma nit wax lu métti métti dana xamne deug dëgg la démb tey mënumaa génn tok fenn ci sama nawle yi ma daan toog fii ci lew nañu sen amut mo xam ay yak kan lañ mo xam ñeneen ñay defar kan lañ waye ku ci nek ak sa gis-gis te sen gis-gis yoy yee ma tay war wax nañ deug ci ma sama kaw moy ndax ñi dañu bëgg jël yëf yi lañu métti won ci ablay wad bañ na fi jugé ñu indi Macky Sall mu wat ñu ci Macky Sall ñu na fi jugé ndax ñi dañu paré pour continuer non wala lan moy lan moy amul benn këru diiné bu ma sa taxaw mo xam khalifa sunu wala bu mu mënti doon and ak ñun ci xex bi ni amul ñom ñooñu and ak ñun ci xex bi ñu xex ba daj ba am liñ bëgg ngeen seppi ñaari këru diiné dem fa ba attaa jangu bi ngeen dem ci jangu bi warna parce que ñom dañu xexon ci combat bi wax ci ba wax jotté légui nak bu fekke yëfi manam yëfu par par loola wala yëfu dem fu leen neex la ñun ñu xam ça suffit dafa doy parce que li tax mooy bi mooy deux fois président Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko dem ñaari kër dina ñëw toog continuer dem seete président ñu wax ci ñu ñu lay ci wax ci loo xam ne nii lañ xamoon la pour lan pour lu maanaam ñi nga xam ne suñu naw lañ nekk ci biir kër loolu weesu na ñu gis premier ministre def lu mel noonu encore gis nañ mu def ko tey léegi nag dañuy laajte ba xam maanaam Sénégal ñaari këru diine ngeen reconnaître yéen président état bi wala lan moo xew ñu xam ñun man lu ma mën a am ci kaw suuf lew nañu seen moo ma ko gënal lu ma mën a am ci kaw suuf xalifa lew nañu seen bii mooy sama kilifa mooy sama xalifa ak lu mën xew xeexal réew mi ci lañ nekkoon réew mi xeexal nañ ko ba jot liñ yaakaar ne indépendance am nañ yemale kilifa yëpp nañ yemale kilifa yëpp te lii ñuy commencé di di def ni nag dana jaxase lu bari boo mënee dem demal fépp boo mënul dem boo mënul dajal fépp nga toog ba man ko lii mooy dëgg soo mënul toog benn xalifa général gënu fi kenn benn xalifa général nag laa wax gënul benn xalifa général yaakaar gi ñu am ci moom moom la ñeneen am ci seen xalifa général yi te man nag li may wax ni sama dënn laa ko jëlee te lu ma métti la parce que tax mu métti ma mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko mu jàll président Ousmane Sonko def na ko tey Cheikh Tidiane Dièye bi mu ñëwee fii ka wax tegul tànkam lew ñu seen xaajale na dafa dem fu ko neex retourné ñibbi yaa ngi dégg ak yeneen ak yeneen ak yeneen seen yi rek seen yeneen ministres yi nga xam ne ñu ngi nemmeeku nit ñi di génn amul ku ci ñëwagum fii law nañu seen te bu fekkee ay taalibe yoo xam ne yuy bàyyi la ci àll bi kenn ëppale wu ko law nañu seen ak Medina taalibe yuy bàyyi rek lañ am ñoom amuñ benn taalibe boo xam du bàyyi moo xam Saalum la moo xam moo xam Ndukkumaan la yaa ngi dégg ñu xam nan la ñuy nan la ñuy développé réew ak nan la nan la de bu leen rafetal taxee jug wala bu leen rafetal taxee jug nañ continuer lii ñu wax beneen bi ci des ma ñëw ci affaire CEDEAO bi buñ fàtte ne ñun ñoo doon taxaw ne bu fekkee ne CEDEAO da nar naa dal ci kaw Mali wala ci kaw Burkina wala ci kaw keneen ñun sénégalais danañ ci jël suñu matukaay bañ koy wax démb ñu yoraguñu woon nguur kon bu ñu yoree nguur tey buñ jàmb ñooñu ndax buñ fàtte ne CEDEAO moo atte moo moo atte Ousmane Sonko na Macky Sall li mu wax dëgg la ci ay fen moom CEDEAO fii la tax Juan Branco taxaw di wax CEDEAO président CEDEAo bi na ko waroo mën a wax yeggale woo nangam ak nangam ak nangam fàtte dafay xaj fàtte xaju fii bi nañ continuer nañ commencé woon te ba ñu dugg dugg pexey tubaab yi ba ñu dugg pexey yenn yii nii li ma gën a yitteel ci wax ji nag mooy naka ngay àndeek ay nit ñu xeex pour ñu ay appel d'offre appel nanga ba nanga pour lan loolu pour lan képp koo xam ne taxawoon nga xeex pour Sénégal pour pour pour Ousmane Sonko am jàmm pour réew mi nekk jàmm pour réew mi développé wu ñooña nañ nañ xool gone yi ku ci nekk fañ la mën a dugal nga liggéey ñu dugal la nga liggéey lii mooy dëgg ku ko wax ko waxut nit mënul perdre temps ak lépp ci yow nga pare naa nangam ak nangam ak loolu ça c'est fii dafa doy dafa doy beneen bu ci des mooy maanaam man lu ma metti ci Ousmane Sonko ak lu ma métti ci Jomaay ma wax ko sa dee mooy dem gim dem giñ dem kër kilifay jàmbur yi neenal suñuy kilifa mel na ñoom reconnaître nit ñi wala xamuñ ñu loolu pour lan man sama kilifa moom moo ma gënal lu ma mën a am nag su fekkee li may continuer ah ça c'est fii na doy na dem na dem bu fekkee li la nga ma nañ dem Sénégal fii ñoom ñooy nañ boole lépp ñu nekk ndey bokk bàyyi boole boole boole boole boole kon boo jugee pour seeti njëkkee ko fa mu waree muy Ndakaaru ko nga xam ne laa yéene ñu ngi fa soo fa jugee soo dem feneen soo fa boo mënta matal baal ba mën a matal dem def loola wala boo mën a mënta matal nga yebal ki nga mën a ki nga yebal mën a dem fii bàyyi fii loolu pour lan loolu mooy mel ni ñi ñoo gën ñi loolu lay xaw ndoro ñun am man démb ba tey mënumaa génn ci sama ndaw lay foo toog ñoo la waaye seen waa ji nanga looy looy tontu amoo looy tontu lan ngay wax nañ nañ ñu bu dul dara sax yow bu suñ kilifa yooyu defuñ ci dara nañ ñu sagal ñun ñi nga xam ne combat perte nañ suñuy pàkk perte suñuy oto perte suñ doole perte suñ lépp perte suñ alal def suñu temps daj ci lu nekk yaa ngi dégg léegi nag après lu ñuy lu ñu war a servir mooy dem xooli nangam nangam ku ma am ndey ak ku ma du loolu da loolu d'accord ci nañ respecté kilifa diina yépp moo xam Laayeen la moo xam Ñaseen la moo xam Medina la moo xam Medina Gunaas la moo xam Touba Tiwaawan ñoom ñëpp benn kër kilifa diina kese la mooy lan mooy kenn ku ci nekk da nga am koo jokku gëm ne moom moo la mën a yeggale kon nañu wante nañu respecté wante lii commencé nag du yegg parce que lu tax yegg mooy nit ku nit ki ak lu métti métti métti métti kilifa moo sax ci xolom boo ko ko respecté le mu respecté boo ko ko sàgganale mu sàggan la ak ku mën a doon nag yoon bii ma gis ngeen commencé ko doxalee nag ci kër kilifa diina yi saa sa fii dafa doy dafa doy jërëjëf